suis conférence de presse quoi. ah d'accord. waaw bi nekk parcelle. nekk parcelle parcelle ban côté la. te laisse informer kii ah. waaw incha allah bu soobee yàlla. waaw léegi kii informe les les les kii euh, les journalistes. comme moi de du perfume. bon comme d'habitude bon comme yow yaa ko doon yow yaa doon leen informer. Uh-huh. parce que là man bu fekkee comme demee na nii nii nii nii nii je suis pas. waaye je suis pas mesure de de kii nii comme yow ñu ngi yaa ngi suivre teg ñoom. ok kii leen ko boo defee benn affiche peut-être le plus vite possible man su ma ko jotee ma envoyé ko samay contact quoi. voilà. ok jéegal jéegal foofu. Euh, groupe presse bi waaw xaaral ma def kon benn communiqué rek ma yónnee la ko. waaw d' accord. voilà incha allah waaw. ok incha allah ok kon je te laisse informer kii ah. d' accord d' accord. waaw mais il faut que ma am les détails heure bi ak yooyu. 16h on avait dit 16h. 16h d' accord. ok 16h ok d' accord incha allah. ok c' est bon d' accord. merci. bis compter. lii booy loo ciy compter. compter deux mille. non booy lii doo ko mën a compter. doo ko mën a compter non mot na lu ma ciy compter. waaw. ay ah. ah, deux mille la kay. mu lijjanti woon nga trois yooyu la nga waxoon wala trois lijjanti trois. <laughs> léegi xoolal. yaa bëgg ñu ba xam ne. passeport passeport kii soo ma ko mënee dimbaleel. kii quoi sama mooy doon gérer sama doom yi. léegi man sama bosa ñu nii façon madame ñu mais bii pareil quoi. waaw dugal ñaar yi. sa bos ak sa bos. waaw boo boo mënee dimbale rek coow ji même ah muy sept cinq cent. kon du problème mu xaalis bi. Mhm. mais dama bëgg au moins comme yow da nga maa tegal ak sa jabar ji expliqué. loolu tax ma bëgg xam nga rek la loolu quoi. ma kii waaye la. ah baax la. xoolal dafa gis xam may expliqué moo tax. xam nga bu doon euh, kër gi day voyage ñu mën ko dugal ut ko utal ko lay. booy gérer ma lii man nga gérer lu raw lool xoolal bii. yow soo pas n'est-ce am na ay temps. am na am na am na ay café bi madame yow sa bopp waaw. madame bu bees la. bu bees la waaw amul temps. sama cousine musul musul voyager. musul voyager mais kii la étudiante la. kii am uh, ñaar yi daal. Mhm. naa ne ma lii. waaw dinaa ko dinaa ko dinaa yàlla ak yéen ci mais sa bos ak naa la naa la yónnee fi muy téye sama doom yi. bu ñu voyagé moo leen di téye waaw wallaay xam naa ni nga wax. waaw waaw donc booy ku bi. dama koy jaay. <laughs> daa ma jaay <laughs> bii sama boy yi 22 la ñuy wax mais dañuy wàcc. ban 22. ci ban année la 2017. c'est trop 68 kilomètres. waaw yaa ko moom ngay. non moom moo ko station. barke yàlla non non moom moo ko boy yi may jóg mais dañ ciy jóg nag. ok dañ ciy jóg. xam nga man boobu pour man jaay bi gën a gaaw mooy ma koy dawal. ok gaa yi gis ko xam nga. baax de ci. léegi yow kañ kañ kañ wala kañ nga xalaat wala. léegi bàyyi ma déjà ma ma ma parce que lii dama il faut ma toog ak le consul direct. Hmm. waaw moom laay toog direct quoi. mais état comme ay artistes lañu quoi la ñuy. waaw dama leen di dama koy wax ni ko yow suñu suñu manager nga de par cette occasion dama koy expliqué. ñaa xam lu ma koy expliqué ñu ngi ko gérer coojuwul waaw coojuwul. ñaa xam lu ma koy expliqué coojuwul. duggoon naa. léegi man bàyyil bàyyil ma. bàyyil ma gérer bàyyil ma man damaa mos a toog dama mos a gën a toog. mosuma toog mosuma toog. mais booy bii saf na de. oto booy jaay doo ci tux quoi. kii ñaata la nga ne fii di tux ca mën naa tux. sama oto déedéet. non dama koy sànni ne ci biir. da ngay tux bu bari sànni ko. non damay sànni saxaar bi du dugg. waaw ayca. xam rek oto booy jaay doo ko doo ko mën a doo ko mën a. gaa yi may xaar quoi. gaa yi. kii si ñaar laa doon jëndi dama yónni. dama jox gaal yi toog booy taw bu ah, ñëwee dama changé cuisinier dama foogoon ay garde corps la déedéet garde corps kon man dama mos a gis garde corps ah, yow mos nga gis ma ànd ak nit bi nga ma xamee ak léegi billaay wal kitaab la <laughs> aw ma xarit man aw ma xarit mm, mm, mm, yow yow man daal ñun laa la xamee xamee xamee waatu man aw ma xarit man kenn du ma gis na ma ànd nga ak non déggoo ma ne ñun laa la xamee xamee waatu ma la ah, kenn ci àdduna parce que mës nga ma dégg fenn man ñu ne ceer nii wala ceer ne la. du ma dégg sax ku la xam. <laughs> mos naa am benn gel muy enquête ci woon. Eh, eh, mu ngi mu dem ci nga xam ne moo dàq taxawal Sénégal mu ne ko ceer mu ne mais man li ma jaaxal waa ji këram. les je pense que c'est un milliardaire. te xam nga ñaata at nga def ak ñun. mu ne ko. xam nga ñaata at nga def ak mu ne ko jeune la mu ne ko jeune la sa morom la. yow xam nga bi ñu xamante ne léegi ñaata at. na def na est-ce nañ vingt cinq de carrière. te suñu juste début carrière lañ xamante bi leen Ablaye ndaw si bu ñëwoon ci ñun di enquête sax du xam cootu ndeyam ci yow. parce que xamal luñ la xamal. benn booy booy bu am moo ni ku ñëw ci ma xamal lan laa koy wax ku rafet xol la ku yëg doomu aadama la ku bëgg nit la. alalam du ko boole kenn mën na ko joxe toog ni laa lay wax ni lool laa xam ci moom day julli jullit la day julli dafa bëgg jaamu yàlla bu weesoo loolu mënu mënuma xaar leen ci yow te boo te bon loo te lool la tamit parce que am na loo xamante ni liñ naan lu dul dëgg du yàgg wax nañ wax ci lii lu dul dëgg du yàgg nañ wax ci lii tey boo nekkoon ci leneen heure bi waxatuñu ko nañ nekk nañ wax ci lii lii bëgg naa ko pour sama ñoom barki Serigne Touba Mbacke yaa ko fi bàyyi 15. 15. yow lii xam nga 2015. bi booy gaa yaa ngi ko teg fee 2015 sama nit nga. gaa yaa ko teg fee di ko jaay lan di ko di wax ay 18 waa ji fa la taxaw. bii 2000 lan la nga ne. de 60 000 kilomètres. ok am. Euh, curseur yow sama booy Alpha xamoon nga sama frère. xam naa ah? waaw mu ngi fi anam. mu ngi fi mais doom doomu dimbali mu tukki. Alpha. mën naa bàyyi ndey kii sa xol ndaw si moom mu dem xam naa moom ngay gën a wóolu. Hmm? xam naa moom ngay gën a wóolu. mais alfa dafa sob de. ci nag alfa sëriñ la est-ce que jéemu jël euh, passeport am joxe ko fenn ba mu ba mu takk. non non non takk pour lan. maanaam dugal ko parce que Alpha Alpha dafa sob.